est-ce que seen candidature bi troisième candidature bi du étincelle. non attends xam nga troisième candidature bi nee naa la fii politique la Barthélémy Dias taxawu fi wax ne mun nañ ne candidat comme Barth dafa waroon ne candidat mais politique la Sonko waxul fi ne ñun Macky Sall day ne candidat tey bu taxawee na ñeneen seen i intellectuels yu fiy wax ay Babacar Gueye mbaa ay Doudou Doudou du Doudou Ndoye tey ñu wax ne Macky Sall candidat la suba ñu am seen intérêt taxaw ñu ne. non xam nga le la candidature est réglé de façon simple cela veut dire qu'on une constitution qui démarre en 2016 toute candidature après après 2016 cela veut dire après les élections de 2019 toutes les candidatures seront compte les candidatures de 2019 toutes les candidatures de 2019 ont été considérées comme la première candidature Merci et celui beaucoup. qui a gagné en 80, en 2019 on a considéré que c'était son premier mandat parce que c'est géré par la nouvelle constitution qui réglait Merci. le problème de cette limitation des mandats.